léegi su ma mbokki ndongo yi yéen a ma xool. maa ngi maa leen a amal 39 millions. yéen a ngi tàccu xam nga lan la leen a wax. léegi. Eh, xam naa ne. Bandaraaɓe fulɓe suusata remgo. because ken taat yoo dafa mel ni buggu leen loolu okay now I, I, I will come down dinaa ko wàcci minister of youth and sport xaalis bi ñoom nag xam lan la ñoo béy waaye na nekk loo xam ne ñoo ko béy So I'm a 1,000 bags of granules. I give you 2 million. I will not take your granules as well. Eh, eh, eh, if you have 500 bags of findi, I give you 2 million. If you have 500 bags of coos, millet, or corn, I give you 2 million. Sahibi, Madao, Ma well, I told Vitam Nanko verify. I'll make sure that the Minister of Agriculture will go around and verify that you cultivated it. on on on so you as one or other, or you especially the other for law on So you nigga from Bullock, back you leader when the poor Quaina. Be my deal with. That is how you access Halisby. You combo. ñoy naka la nga amee si xaalis bi tamit suñu eggee combo dinaa leen ko wax suñu eggee combo dinaa leen parce que dafa daw yaram. dama joxe ten thousand dollars si Sedem foofu tam pël yi bari nañ fa lool. nga jaa du la ko kaa du ne ten thousand te bu ne kéeri ko. ma ne ndongo ñu ñëw ñu dem utal ma kaba ñu dem ci benn pël futa jëndee ko ka jëndee fa kaba. te jéem eh, a pël futa koo doon cooni yoon kaba bi dandani. te waxoon naa leen ne su pël futa boo am ne kooku sa gan la fii dem si àll bi uti kaba. yéen ndongo yi lan ngeen a toog omi ko alani on sudai kaba ido onon ido ko konguno yomulode itta kaba ala ɗo onon on wonna ko moɗon am na chairman bu wax fi affaire forestry omi chairman goɗo ari affaire forestry man maay ministre of forestry omi kakkon ministre of forestry su fekkee ne garab yi fuñ nekka suuf si baax pour agriculture. léegi ni moƴƴi fi agriculture. dañoo dandal garab yi ñu dunda. owi te gitta lekkol koye ɓen gona geseele yimɓe wuura comme ministre of agriculture lum wa ministre agriculture ko haali fu ñoo wax forest park daf de nekk boo xam ne loo fa ji du baax wa wa mane suba joye gana nan ngende dog alabi o ya ni so na be ko ko trio kon e ta dade dede ku buga dog ala be ko bala tete dede joko ak governor because regional forestry department si ona governor lañ nekka nge na ñom suñ la joye lancis ngeen dog ko kala bala wadde ɗum ɓe a wadde ja jiida e gofono gofono o e malgré forestry ko ley muɗum ɓe ko ɓe jowɗo ɓe kon affaire forestry du tere nit ñi béy fu ñu war a béy. kon loolu nekkul problème. onon wona problème. af bente affaire yi 39 million bi. owi njeen mbawto 39 million ko wi ko. lima lima gëna mooy lan. ko ɓurani ono gandi ɗum. River Gambia. owi River Gambia. ak bolongam yi yëpp. ak bolo wonɗo ɗo fof. from bara be koyna woni get gilade bara ha koyna nabakati ne ga wa rew mi la o wi kala mon la daɓalliɗe mayoye foko fito leydi because li ngay xamut mooy nappakat lu moo am si bi amut office worker koo xam ne mun na am because nappakat bi mun am hundred thousand to two hundred thousand dollars in a week or even in a day o wi sa alaari yawto maayo daɓɓalliɗi yeye yayimbe. Wiki force down already serious employment, I have 100,000. What about busy? Wiki 8,000. Mangagi's Rural Poultry Farmers Association. Ori, oi, Farmers Association Gogogo. Poultry. Ndongo inyotie flag, we amna nyisi opa jigen nai. Oi, ndongo jini nangu no flag ndongo tey. omi noon. dëkk baa ngi bari feebar yoo xam ne kenn xamul fan la jógee. omi saare o heewi ñaw ñappuli ko ngannduɗa ɓe ganda oɗo ɗi ndewi so loo xamul fan la jógee so a ñaami ngo mo anndanta ko ñaamɗa ko annda hono iri xamuloo naka len ko liggéey a annda honoɓe ɗum ɓe golli di nga feewa feewa boo naka la ñëwee li dawagoo noon an xale yu ndaw dañu am asma nga gis xale bu ndaw ñu ne dafa am diabetes te diabetes ak asma la tey. mooy doo. obésité sax nekk na problème mooy jigéen ñi dañ ak góor yi dañoo nekk di rëy rek seen kola bi di rëy comme suma bos. ah ah mooy doo di saa daal di wóor ne rëbe koo rëbe wéen ni maam na lan moo moo numaa ni ko ñaare dee na. ñu ngi am projet boo xam hundred million dollars projet pour agriculture. waaye bu fekkee ne projet bi maa ko hundred million dollars ko am nga am na drama group eh, drama video bu ñëwa Babylon by force waaye bii tam dafa nekk agriculture by force moom la projet bi noonu la moo tudda oh, drama group oh,